maa ngi tudd Ngañ Ngañ Kebe. basically with regards to the distribution of the rice comme maalo bu gaa yi di nekk di distributé nii ni ma ko gisee mooy defoon naa suma jotoon naa laajte ñeena ñu ne ma ne 60 percent of Banjulians lañ waroon a joxe so ma toogaat ma gisaat ñu ngi indi ñu ngi indicate ñu ne 50 percent of Banjulians so am na yenn household am nañ am na yeneen household amuñ so. as a concerned citizen dem naa ma laajte about it naka la fa demee comme naka lañ nekk di distributé so jotoon naa laajte tuuti information so ñu ne ma ne dañ defoon benn sauvé so sauvé bi moom buñ ko doon def nag man xaw ma nag suma kër laajte woon naa ñu ñëwoon nañ fa waaye actually bu gars yi am na ñu am na ñu am amuñ ñu amuñ soo laajte naa comme ñu ne dañ dee laajte question si household bu nekk ñaata nit a ak naka la gars yi dëkkee dëkkee ak ñaata individuel su nekk si benn household soo loolu la gars soo am na yenn kër yoo xam ne am am na kër yoo xam ne amuñ wax bi bari woon na nag soo waaye all of as daal am na ñoo xam ne ñu am ñoom rafetlu nañ ko ñu amul ñoom dégg naa ne gars yi ngi dem si council bi pour Euh, leseen clients indicate seen name si foofu noonu pour ñu mën leen a jox ñoom tamit. basically statistical data nu ko gars yi interpréter ñu joxee data bi man first of all foofu laay mën a xoolee because ñu ñëw def survey bi so foog naa ñoom ñoo nekk si CSO si. ñooñu ñoo ñëwoon def data bi soo bu gaay defee data bi xaw ma naka la gaay doon joxee naka la gaay interpréter bi because man bu ma ñëwee dama laaj ñu ne ma ne dañ ñëw si kër bi comme exemple man suma kër bu ma laajtee dañ ne dañ ñëw suñ kër ñu laajte ña na nekk how many people are there soo foofu noonu fi ko boobu noonu la gaay joxee ñu joxee laaj individuel su nekk suñu kër soo dem nañ si yeneen kër yi am ñu ma leen laaj soo also told me that comme ni ñoom wax nañ ma ne yenn kër ñetti households ñoo fa nekk ñetti cin ñoo fa la nekk waaye comme ni bi kër bi kenn rek la gaay jox so loolu noonu yëpp it becomes an issue when it comes to the statistical analysis of all those data ñu gaay doon analyser data bi I don't know how ban model model la gaay use pour interpret that so man daal foofu laa ko based on my assumptions daal comme ni nu ngay collecté data bi ak ñan lañ ko jox ban modèle lañ use modalities yi comme ban arithmetic meaning la ngay use bi nga xam ne ni jot nañoo am correct data bi because soo amee data nga dem nga nga indi input li yëpp da nga koo input soo ko imputé in the form of statistics dina la mën a jox on average ñan nga ko mën a jox ak ñoo ko mën a jox on a di correct modèle with the correct model so that lolu non yep comme ni nekku na ma comme jangal much but anyway with, when it comes to calculus di ko mëna komuna ko mëna lifin or so fekkono def nga for the max di nga mëna am arithmetic meaning bobu nonu yep pour nga mëna am correct data bobu nonu bu gaay ñëwé pour def sauver bi fekkuy ma fa won by then i was at work so dama ñëw ñu wax ma ne people came over actually ñi ne ñaari nita fa ñew kenaki wosé banjulian ki mom suñ ward development bi la nekka he's I think he or she was from a ward development keneen ki moom keneen ki ku ñëw moom kooku moom I don't know the person because bu ma laajtee sama famille ñoom ñu ne ñoom xamuñ kooku noonu so that reminds me ndax kooku noonu waa Banjul yeen la o suñu ward development community bi ku mu àndaloon kooku moo ko doon jéem a woon naka la fàttin si jotoon naa dégg loolu noonu information boobu noonu waaye xam nga laa rek waaye man suma boppa kenn si suñu woo développement bi kenn mooy ñëw mu ngi ànd accompagné by ku ñëw def si OV bi mu nekk ñoom ñaar so loolu lañ ma wax waaye man suma bopp teguma leen bët because man maa ngi woon job by then comme man nu ma ko suggesté nu ma ko numa ko fogee daal comme man these things comme ni comme ni after having the model bu ñëwee nga joxe soo soo demee nga dem each household nga collect data boobu noonu so demee nga use ban model ngeen use pour ngeen pour ngeen mën ko pour ngeen lifin pour ngeen mëna am ñan ngeen wara jox ak ñu bu fekkee ne 50 of banjulians am na fekkee ne da ngaa dem kër bi nga jox kër bi nga jump dem beneen kër i don't know ndax naka leen ndax it was at random or how man nu ko gars because mang ngay diga am na ñoo xam ne si luñ ma wax lu ma jot su lu ma dañ ne dañoo dem kër bi ñu jom beneen kër dem kër bi jom beneen kër Or ñu dem kër bi seet jox ko beneen dem si beneen néeg I don't know one minute so that is just at random it's a probability case loolu soo ko si amee probability case la moo nekka so amul benn système boo xam ne use nañ ko pour ngeen mun a am conclusive meaning boo xam ne ni moom ngeen a use pour mun a am each household ñan ñan ñan ngeen war a jox ak ñu ko warut a jox loolu noonu yëpp. loolu moo tax mooy man su ma nekk si doon néegoo xool xool kër bi mooy kër bi nii rek suma ma néegoo xool kër fu mu nekk nii kër bi nii mun naa ne comme ni like three households moo fa nekk. loolu lu raad. kenn kenn kenn amul kenn te ñoom ñoom def nañ bi si ñoom man laaj naa maire bi maire bi fii mu fi ak paa bi ak ñeneen ak ñeneen ñëpp a ngi fi kenn sax amuñ ko ful kër nga dem yeneen kër yoo xam ne next door next door néegu mooy si beneen kër bi nii ah four households ñoo fa nekk ñaari ñaari cin la gaay dee tooga ñoom four households yëpp a am. yeneen ñaari households néegi bachelor lañ néegi boys la comme lu néegi la ic néeg boo xam ne nii benn boy a nekk ak mooy ak cousin am am ñoom apply si beneen kër bi so yet still so loolu mu laa woon naka la kër boo xam ne nii about three households ñoo fa nekk si benn a amuñ dara ñu ngi leen skip beneen household boo xam ne nii ñaara fa nekk ak yeneen ñaari néegi bachelor I have no problem or no grudge with bachelor yi or boys yi or whatsoever waaye dañ ne ñoo xam ne nii ñoo ko yor ñoom ñooy toog a cin o sanga even boy lekka mën nañoo jël seen seen mën nañoo am seen seen ration si ñu jël ko jox ko contribute ko si kër bi that is still ñoom tam ñu ngi contribute I have no problem with that waaye dañoo xool tamit comme système man système bu gaay adoption modèle bu gaay use man foofu rek laa am issue because man comme ni when it comes to statistics man always am always cautious about that models and others man lu ma ko gisee woon at first I was expecting ne comme ni ñu ne first dañ ne population of the Gambia loolu nekkoon teget bi ok bu président bi annoncé mu ngi indicate ne eighty eighty four to eighty five percent of the population ñoom ñooy am ration bi so when it comes to that so comme ni first priority bi dañoo njëkkaa jox population bi mooy Gambian si nationalities si dañoo Gambian nationalities mooy citizens si ñoom when it comes to that bu fekkee ne am nañ excess so foog naa ne si la ñoo mën a consider comme ni foreign national si waaye fu mu nii da ngaa dem yenn yoo xam ne because Banjul dafa jaxasoo dangaa ngaa dem yenn kër yoo xam ne nii foree na yaa fa ñoo fa ëppa ñoom ñoom ñoo luyaas kër bi yëpp fu soo nga dem nga suñ ration bi jël ñoom ful kër ñëpp a am while others Gambians yoo xam ne nii even taxpayers si sax ñoo xam ne civil servants yooyu noonu yëpp kër ful kër amul comme ni ma la ko joxee nii comme jos kër bii nii rek Jaanekunda ful kër yëpp amul te foofu noonu yëpp civil servants yaa fa nekk te ñoom ñoom Gambian lañ understand so loolu noonu dafa nekk issue bi man si man lii suñ station la so suñ concern la foog ñu raise ko when it comes to these things lii baax ñu channel ko and I hope the authorities watching also ñoom tam dinañ try pour in case ñaanuñ ko defaat yeneen façon yi ration si whatsoever dañ war try tam ñu consider nit jël seen opinion maybe they can have an opinion polls no idea is bad depends on how it is contextualized anasaan nga soo noonu rek la ñoo mën a jëlee information ñu share ko ñoom ñëpp ñu mën a xam su affecting ñëpp ñëpp di si seen boppa ah. programme bi moom suñ programme la because man actually dama ko lay follow because subscribe naa online subscribe naa YouTube so dama ko lay seetaan because man mos online li fi nii lay follow because information is power you can get information from anywhere so dafa depend naka ko mën a digester nga reason with it whether su télé bi ñu ngi ko ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax te kontaan nañ si yéen tamit yéen a ngay def seen waar at least ñun lii lañ bëgg comme ni fu mu nekk nii suñu amee suñu opinion suñu amee suñu conscience fu foog ñu am foo xam ne dinañ ko a channel on s' am ñun bàññul fii nii lii soxla nañ ko trop. mooy moo waxtaani mbedda bi mm-hmm. surtout waxtaani mbedda bi rek tamit suñu amuñ amuñ fu mu nekk nii fu ñoo voice out suñu conscience fan lañ ko amoon baa ñun amuñ benn TV station amuñ benn radio station everything is in is is is is outside Banjul across across the bridge te ñu ne fii capital la. understand nga so maa ngi try maa ngi ñaax bu mu nekk nii suñ comme ni suñ well established individuals si suñ mun a set up more TV station more media houses. because lii dañ ko soxloon foog naa Banjul fu mu nekk nii amul ban station TV station or radio station moo fi nekkoon temps boobu xanaa si Sud FM la te loolu ban la ak ak radio Sida yooyu noonu yooyu yëpp yooyu yëpp dee nañ fu mu nekk nii amatuñ dara te fu mu nekk nii suñ concern suñu amee. even advert sa suñ ko waré am foog ñu dem across the bridge ñu jé suñ concern suñ advert sax yooyu té te ñooñu combo bi ñekku ñi fa xam wa bañu on sanga li wa bañu la ñun ñoko wara momal suñ bopa ñoko mom ni suñ alal la dañ wara tek take ownership Niki bala nga daaxa mu génn ci biti on sanga olof ñay moko wax mu ne ko ne bala nga mu ci biti luy jibril sa kër mu ñëw sa